revue de presse. El Hadj Ahmed Aïdara. Bismillah. waaye barça jéeg bal sax mi kañ lay jeex tribune yéen a am na beneen gaal xam ne de mar di tali la ilaha illallah dama ne la yow ñi noppeeguñ di jooy ko ne xam ne nag maanaam ñoom la seen gaal kon lakk ca géeju mbuur gale waaw kuréel gi nga xam ne moom lañ dénk nag xam ne am na gaalug xam ne espagnol ñee ko moom de guardia la dama ne la guddi ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar la ci octobre ay booru trois heures du matin ah dëgg la yéen kaa gi ne fanweer ak juróom-ñeent dong ci ay doomu aadama de ñoo ca rëcc allahu akbar waaye ña nga continué kon di wër ba léegi ni lée enquête yéen kaay ne immigration clandestine bi nga xam ne kon dellu soit na waaw dama yi day ndoxu safara la de ndoxu la de ah waaw ne la am na beneenu gaal goo xam ne nag dafa mbëkk benn gaalu armée bi la ñaar fukki ci ay doomu aadama kon ñoo ca ñàkk seen bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun président Macky Sall day waaw lam bëgg nag moo ñu dajale kon kattan yi lée ngir la capitaine Dia UGB waaw nee na ci wàllu kaarange day gars yi wane nañ liñ mën de ils ont montré leur limite de Boubacar Seye horizon sans frontière waaw nee na koppar gi nga xam ne moom la ñu yëkkati maanaam ngir xeex lii walaay joxuñu ko ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ko moom dëgg la tribune yéene kaa ne dama ne yow ci milliards yi nga xam ne kon ñoo jóge ca union européenne googee ngir xeex wàllum immigration clandestine xaalis boobee anamu looloolu jara jàppaloon gouvernement wu Abdoulaye Wade ngir financer ndaw yi lée mën leen a de ci seenu réew xaalis ba anamu laa la wax parce ba fii ñuy addooni lée ah, ah bariwul de pour nga dajee gone mu ne la financement yooyee am naa caax ah, yombul tribune yéene kaay ne dama xaalis bi ko toll woon na ci fukki milliards ak ñett laa la wax premier ministre Espagne ba Luis José Zapatero da koo joxe woon gouvernement wu Sénégal bi lée ngir wàllu njàng meeg njàngale mi éducation wàllu wér war a dem la demul a wax te liy mandargaal ne xaalis bi nga xam ne kon maanaam ñu ngi ko dugal bëri lool te am na ci wàllum immigration clandestine bi mooy diggante 2021 waaw commission union européenne ba day gaañaa leen di ñaax ne leen defoon benn def leen ko ñett triple leen kon koppar googee dana toll léegi ci 34 virgule 9 milliards d'euros président Idrissa Seck day ci tribune yéene kaay waaw daal dinay sàkk na ci gouvernement wu Macky Sall bi mu gungee xale yii ngir gone yi mën a xam moo waral immigration clandestine bi lée waaye ministre de l'emploi ci boppam ci 24 heures waaw nee na day amul problème mu emploi wàllum xëy yaa jum wala maa jum lii la Dame Diop wax critique yéene kaay ne nee na Fatmata moom ministre de la jeunesse waaw li wax mooy mandargaal nekkoon gouvernement bi lée lajj na nee na Fatmata wane na nguur gi def na lu mu tamit war nañoo wax ak xale yi de vox populi ne gouvernement akbar lii quotidien ay téeméeri téeméer ñoo dee si ñetti fan allahu akbar laaste gouvernement ba kay ña ngay wàññi na doomu xam ne ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun léegi ko yéene kaay ne géej gi kay daal dinañ koy soppi nag léegi ay armeel xale yi seen yaakaar tas na gouvernement bi dafa tële de gouvernement bu impuissant laa la wax la ñu am Abdourahmane Kane day sociologue la ci source a waaw nee na xale yi ñoom ñoo tollu foo xam ne day ñoom jàpp nañ ne li kenn mënatul téye xale laa la wax maar di tali waaw réew mi quotidien ne ca jamono jooje waaw Emmanuel ko defati de dana fi bàyyi islam ak yonentam bi moo tax Ousmane Sonko xamal ne président France ne ko xeex bi ngay xeex islam ni la ñàkk nga ko te commencé gul waa FRAPP day nee nañu lépp produit français dañ leen ko gén Karim Xurum Xaax ak ñam àndal day dañ doon manifester ñu jàpp waaye bàyyi waan nañ leen évidence tey ne kaay ne destiné bi nga xam ne kon mi koy destiné yéene kaay ne dëgg la de parce que waa Pakistan woo nañu ambassadeur u France ba waa taabal ja laas dootu ko defati de critique yéene kaay ne Ndakaaru njaay joob de ña mar naan ndox mi coupé ci Ndakaaru gii lañ xamul lan la ko yéene kaay ne auditu SODAV ah, yorin gi am na ci xam ne moo mer loo président Macky Sall de dama ne la Macky Sall ngi leen bind kon depuis 11 août 2020 ministre de la culture waaw ngir nag bu daal di koy defal évaluation kër googa xam ne kon moom la commission permanente contrôle gestion ba collectif ba nekkee santaanewu président boobe ministre Abdoulaye Diop da deful dara Abdoulaye Mamadou Guissé day ci évidence Sénégal waaw nee yorin gu lëndëm googee am ca sodaab yu sunur lii quotidien ne auditu sodaab googee am na de gaa nañ de ay financement yoo xam ne dañ koy jébal conseil d'administration ba membre ya ñoom Fou Malade ak Aziz Dieng Daniel Gomez ak ñeneen ak ñeneen sax yi nga xam ne moom la ñuy dund ca biir port boobee en tout cas naxarul nañ ni ca biir port ba day lépp a dara doxul Dakar Times ne crise politique yi lée waaw ngelaw lii jolli fii ci doonuk Afrique waaw ma ngay saf na kon printemps arabe ah. maa la ko wax fi gis ay nguur yoo xam ne ci Afrique sow jant gi dan nañ ne mëbëx daal di daanu ndox troisième mandat bi laa la wax xoolal ma la xew ca Mali ak ca Guinée ca Côte d'Ivoire dootul yàggati yeneen a di waruwaat wa say diggee nga faxas loo watu lekk waat ko wax waxaat sa kanamu askan dayoo président Macky Sall bu dul dara xoolal sa dignité ak fa nga yegg sa ngëm-ngëm bu dul dara reste bi dox sa diggante askan wi lee dara nga xool suñu Sénégal gi leen niñ ko nawee bu dara nga moytu rek ab dara di dox jóge sa askan kon nag bu la dara jaral nga naan troisième mandat source aané dama ne président ku la ne réew mi neex na daf lay nax nii xale di nim ci géej gi Barça wala Balzac ji rek mandargaal na ko kon nag le père Ousa na <laughs>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 Zik FM juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum immigration clandestine jaa ngi gën di yokkooti embarcation yi lu may loolu direction bu information relation publique bu armee DIRPA di xam le ni ñu ngi def ay patrouille fu mel ni Sàngamar ànd ak marine nationale dinañ ci dellu soit ci biir xibaar yi lu may loolu itam gaal gu këpp ginnaaw euh, li nga xamante ni mooy li xewoon Euh, lépp des na ci dellusaat ci wàllu boobee ak euh, ki nga xam ni mooy amiral Faye Gassama bu euh, dakkaar nañ ci dellusaat saat loole itam des na wax ci wàllu xibaar président de la république ci cadre coordination gouvernement bi joxe ne instruction pour kat ñu daal di mutualiser li nga xam mooy effort yi ngir kat mën a jàkkaarloog loole ba nga xamante ni bi daañu fexe ba dakkal immigration clandestine Euh, des na wax euh, ministre bi wax lu jëm ci wàllu napp mi moom itam ma ngay euh, wax loo ci li nga xam ni mooy napp mi fii ci biir réew mi nga mu joxe ci tegtal ci wàllum xëy na dédouané ministère am ci lu jëm ci responsabilité ci li fait ndaw ñi dem foofee ci Tugal xibaaru tàggat yaram des na ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen a kaay la ñuy ndax keppe xibaar yi ak El Hadji Ahmed Aïdara Voici Traffic News. asalaamaaleykum wa trafic. maaleykum salaam Mansour. naka situation Talibe Abba. voilà merci dépassé nañ ko waaye xat na lool yéen ñu bàyyi ko Rufisque vous êtes averti ce matin c'est compliqué maanaam mbir mi xat na métti lool yéen ñu bàyyi ko Rufisque daanaka euh, Petit Mbao jàpp Fass Mbao rond-point Sicap Mbao jàmm gën utali Poste Thiaroye axe boobu la c'est très compliqué en ce moment sans faire Dakar dans l'autre sens aussi vers Rufisque dégagé fekkee da ngeen bëgg a mucc si yooyu la jafe-jafe mën ngeen jël la route des porcheries da ngeen ñëw ba rond-point Sicap Mbao duggee noonu jaaree ko Thiaroye sur Mer soit ngeen génnee Poste Thiaroye soit ngeen génnee du côté du marché aux poissons ngeen mucc si yooyu la jafe-jafe Hadj Mansour Zik FM. salaamaaleykum. immigration am na beneen embarcation bu ñu dëpp caltine ji ci fi nga xamante ni muy digg géej gi. Euh, mu yeboon ay ndaw yu doon dem Barcelone wala Barsaq en tout cas direction bu yor wàllu information ak relation publique bu armée nationale DIRPA moo joxe xibaar bi ni patrouille bu doon am ca Sangomar euh, waa marine nationale doon ko def. ci euh, seen gaal yooye nañu daal di nemmeeku ci fi nga xam ni moo di euh, ay nit yoo xamante ni bii xëy na dañu leen daal di euh, dëpp muy gaal goo xam ni ay clandestin la yeboon loolu nga am ci guddi vingt cinq jàpp vingt six octobre ci ay trois heures du matin ci bi nga xam ni cinq ci digganteem ak large bu Dakar mi ngi toll ci cinq kilomètres la ñu leen daal di dëpp euh, pirogue googee nga xamante ni bii euh, dëpp nañu ko maanaam waññi nañu ko ginnaaw euh, mbëkkante boo xamante ni bii kon wala daje na ak li nga xam ni moo di patrouille bu Sangomar nga xam ne ay patrouille yu am solo la bu ñu sooti bu ñu seetee nag ci seen patrouille boobee permettre na leen ñu daal di sauver trente neuf personnes yi nga xamante ni bii ñoo nekkoon foofee ci gaal ga déjà sax daal nañ leen di transférer fi nga xam ne mooy base naval amiral fay Gassama mu nekk fii ci Dakar euh, DIRPA mu ngi continuer toujours di def ay recherche ak enquête boo xam ni ubbi nañu ko ca ñooñee doon noon ay immigré clandestin tollu ci trente neuf ñu dëpp leen ci biir géej gi l'armée bi moo ko def ñu doon dem foofee ci Espagne diggante juróom-ñaari fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weer bi la ñu ne lu toll ci juróomi gaal yoo xam ni kon interpellé nañu wala intercepté nañu leen maanaam teg nañu leen loxo. fekk dañu doon dem ca bitim réew yëpp ay xale ci loolee ñuy wax immigration clandestine ñu ko def mooy marine nationale ànd ci ak ñi nga xamante ni bii xëy na mooy euh, guardia civil espagnol ak euh, yeneen ci ay gaalu Sénégal nag yoo xamante ni bii xëy na bokkuñu ci ñi def immigration waaye bu ñu gisee ñooñee te foog ni moom la ñuy def dañu leen di dénoncer bu ñu gisee marine bi dañu leen koy wax. am na lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti nit yoo xamante ni bii sauvé nañu leen kon ci diirub lu matul weer diggante cinq ba diggante sept ba vingt cinq octobre kon daanaka dañoo mel ni ñu euh, rakkaaju nag jamono ji tembe ñu sukkandiku ci communiqué bu gouvernement bu Sénégal opération surveillance yi dafay continuer ñuy bàyyi xel bu baax géej gi ngir kat benn xale du fi jaar ci gaal ngir mën a dem foofee ca Espagne bu ñu seetee itam teg nañu loxo euh, lu toll ci ñaar fukki xale ak juróom-ñett yoo xamante ni bii euh, ñooñee ay convoyeur lañu ñu ñoo xam ni ñooy nas palang bi tax xale yi dugg ci gaal yi dem ñu leen di yóbbu muy convoyeur am nañu limub ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ni teg nañu leen loxo njiitu réew mi sax nag wax na ci président de la république nee na daa ñu def euh, coordination gouvernementale. ngir joxe ay instruction yoo xam dañuy boole kante nekk doole yi woo askan wi yëpp itam ñu gën a vigilant coopérer ak force de défense yi et de sécurité ngir mën a euh, sàmm géej gi sàmm itam ndaw ñi ngir ku nekk dugal loxoom ci xeexub immigration clandestine directeur exécutif bu Amnesty International section bu Sénégal la mu jàpp mooy phénomène bii kat euh, ni muy màggee fii ci Sénégal Seydi Gassama moom am na nu mu ko xalaatee ba tax rek mu jàpp ni faw ñu am doxalin woo xam ne daañu ko soppi ci lii nga xam ni mooy euh, phénomène bu doy wax bi Sénégal di dund lu ñu war a soppi fexe am politique emploi des jeunes bu baax ñu teewlu Seydi Gassama la solution c'est pas ngir saafara jàngoro ji nekkul rek lu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi beneen mbir la ndax te gis nañu ay jàngalekat yu bàyyi seen ay poste jël gaal gi ngir wutali Espagne gis tamit ñoo xam ne amoon nañ place bu baax fii nii jël tamit bi lay yoon naam war nañ nag taxawal ay xëy ngir ndaw ñi teg ci tamit di xamal que ni waxtu wi ñu si bëri ñoo ngi jaay seen àdduna ngir Barça comme nuñ koy waxee Barça am am mën nañ ko am am mën nañ ko am fii ci réew mi bu ñu delluwaat ci mbéy mi pexe la ngir ñu xeex li ni mel Euh, de produits agricoles. ministre bi wax lu jëm ci wàllu napp mi Aliou Ndoye démb ci suba dajane ak ñi nga xam ñooy waa CLAP CLAP mooy conseil local de la pêche artisanale. nga xam ni euh, daal dinañuy créer fii ci ñu ngi ko créer ci réew mi daanaka euh, mille neuf cent quatre vingt xel xalaat ci jafe yi nga xam ni moom la napp mi jànkuwanteel mu ni am na itam pexe bu ñu bu ñu nas ngir gën a mën a dooleel napp moomee dimbali leen ci ay xeetu jumtukaay def na itam ay précision muy ay leeral ci tuuma yi tegu ci kaw ndoddu ministère am muy bateau étranger yi napp ci suñu géej gi ba tax amatul jën Cheikh Ahmed Tidiane Seck fa demoon. bokk na ci jafe-jafe yi coordonnateur yi CLPA yi waxtaane ak joriñ bi ñu dénk wàllu napp gi mu di koppar ya nga xam ne moom la ñu war a doxalee seen i kuréel yi la ministre Aliou Ndoye seen moyen de fonctionnement néew na lool ñoom euh, dañu waroon am ristourne de 60 pour cent loolu nag am na ñu ko ci jot waaye dafa mel na ñi ci tey am nañ jafe pour jot loolu laa wax ni danañ ko xayma ci lu gaaw xool lu waral jafe-jafe yi ak service yi ñu xool lépp ñu càmbar lépp pour que CLPA bu ne ñu xool lu tax ndax jot nga wala jotoo boo jotul ñu wax ma lu tax jotuloo loo pour ñu jëm ko saafara jot say 60 pour cent. ba ko laajee ci mbirum xale yi nga xam ne dañuy jël gaal yi di wàlliyaani ministre bi daal di wax sax yenn ci ay circuit mafieux yoo xamante ne dugal seen loxo ci mbir yi. souvent ay ay ñoo koy organiser. Euh, il faut les qualifier ñoo xam ne pour man ay mafieux lañ ñoo koy organiser. parce que ñoom li ci wut utum alal lañ ci wut utu dañuy ubbi bu bees mooy jaar géej gi pour jot le premiers territoires espagnols ak yooyu que moo gën a jege. Euh, donc filière bu bees boobu il faut ñu koy xeexee de façon efficace. fanweer ay daañu jot ci ay bateau en fibre de verre ngir sax gën a nañuy saytu tefes yi. Cheikh Ahmed xam ngeen ni Covid 19 ji àndandoog nawet bu bari ndox lool def na ay jeexital yu xaw a metti ci ñu dëkk ci diwaanu Diourbel ñu bari ci ñoom lañu yàqale ci alal mënuñu koo xayma am ñu génn itam seeni ay dëkkuwaay municipalité bi nag ma ngay nas ay pexe ngir jàppale leen Diourbel Abdoulaye Diagne. ci njaareem bëri na ay njaboot yoo xame ne mbënn mi laaloon na leen Aminata Ndaw dëkk Thierno Kandji. sama mat laa wi nga xam ne lor gi seen kaw la dal ne dañoo bëgg ku leen jàppale ba ñu mën a génn ci seen jafe-jafe yi Jibi Diop yor kàddu ñi loru ci mbënn mi. nawet bi kon muy tëddee nii ñu sañoon daal ñu gën ñu dimbale ci wàllu sinistre yi. bokk moomeelu njaareem taxaw ci wàllu leen benn. 2000 sacs ñu mën koo jàppale askan wi boole ko ak saabu ak ay eau de javel mu nekk benn kit. Malick la fas yéene wu la yem ci lu ni mel ci diir bu gàtt dina yaatal la ay jéegoom. fan yii di ñëw day génn benn somme bu am solo dimbale ko ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci service seen liggéey yàqu dañ leen jàppale ñoom it lu bokk ak lii. bokk moomeelu njaaree ma ci fàttali génne woon na ci lu tollook juróom benn fukki million ci sunuy koppar ngir jàppale ko askan wi ci jamonoy mbas mi lee Abdoulaye Diagne Njaarim Zik FM. Abdoulaye Diagne xam ngeen ni kuréel gii ñuy wax le haut conseil du dialogue social dafa am benn section boo xam ne wàllu éducation lay saytu amal nañu benn ndaje bu ñu seq ak syndicat ak jàngalekat yi fële ci diwaanu Saly Portudal jubluwaay bi mooy fexe ba ñu am ren année scolaire bu dal bu bariwul fitna. Papa Dieye fekke woon na ndaje ma ngir saxal jàmm ci école bi jàlloo ko ci diisoo au conseil du dialogue social dajale na ñi nga xam ne ñooy yëngu ci njàng meeg njàngale mi comme ni mu koy defee saa su ne bu école waree tijji Innocence Ntap Ndiaye moom moo jiite HCDS école bi wàllu njàngale bi ñu wàññi crise waxuñu bu ñu am de ndax fu liggéeykat nekk ak gouvernement ak njaatige faw dina am ay rëq-rëq mais ñu wàññi ko ci intérêt Sénégal lépp loo xam ne day indi jàmm si réew loolu la ñuy liggéey syndicalistes yi nag ñu ngi artu Abdou Fati bu G7 suñu bëggee jàmm am ñun ñëpp manko nañu également concomitamment jéem a régler sunu problème mooy résorber régler définitivement le protocole d' accord de 2018. ministre de l' éducation bi nag moom yaakaar na ne dialogue bi mën na lépp. te lu ñu ngi jógee si année scolaire boo xam ne. Euh, si période Covid bi. métti na métti woon na année scolaire boobu. waaye ñëpp jàpp nañu. yàlla def si ñu am chance. ñu mën a continuer suñu année. am ay résultats yu baax. et la première des priorités. Euh, c' est pour apaiser le dialogue social. xeetu ndaje yi nag dina wàññi juunoo ci diggante ñi nga xam ne ñoo seq njàng meeg njàngale mi Pape Dieye Saly Zik FM maa ngi lay jaajëfal Papa Dieye ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ma nga woon démb ca Madina Baye ca kaw lakk ngir waajtaayu gàmmu gi yóbbu na fa ay masque ak ay gel antiseptique boole ci sàkku ci xalif bi mu gën a feddali kàddu yu ndigali ci taalibe yi respecté mesure barrières yi xalif bi itam rafet na jéegoy ministre bi muy euh, xalifa Cheikh Mahi Ibrahima Niass moom la ñuy déglu ndax seen tànk yu tedd yëpp ndax nit ñi am nañ dal ndax nit ñi am nañ kóllëre ndax nit ñi am nañ yaakaar loolu moo leen indi tànk yu tedd yi loolu ko indi kon sëriñ bi nee nangu na ko bu baax a baax sëriñ bi ma ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaay ci Sénégal seen taxawaay ci Sénégal yàlla ko yàlla feeñal yàlla ngeen àgg li ngeen bëggal Sénégal yëpp am ngeen ndax am ngeen peuple boo xam ne. ñoom tamit. ñoom yëg nañ ne. yëg nañ ne. am nañ ñuy sonn pour ñoom. am nañ ñuy sonn pour ñoom. muy kàddu yu bàyyeekoo ci xalif euh, cheikh al islam euh, di euh, cheikh Mahi Ibrahima Niass. ci waajtaayu màggal googe itam ñu jagleel feeñ ci jamono rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, kuréel gi nekk ci quartier Firdawsi ci Kër Massar di association Ouléma Manding ci Sénégal amal nañu benn ndaje ndajem CLD lañ koy wax ngir kat euh, waajal gàmm gu am solo googe nga xam ni des na ci euh, bu ñu dégloo kàddu yi bàyyi ci Makhtar Mbengue mi nekk chef cabinet maire bu Kër Massar nee na daañ ci taxaw na mu jaadoo bitim réew diggante Turquie ak France ngay gën a xajam njiitu réew France kat daa daa mel ni ku def mu def ba noppi ni ma tey te continuer nag di ci gën a nekk rek ni moom daal du dakkal benn yoon ñi defi nataal di yooyoo suñu yonente bi te loolu nag doonu lu xel mën a nangu njiital turki nag ni ko euh, li ñu gëm kenn du ko sàggane jotewul dara ak ndund gi ba tax sax faf gedd nañu lépp lu jóge ci yow xeetu produit bépp bu mu doon te bàyyi ko France waa turki gedd nañu ko jamono ji tembe nag diggante ñaari kilifay yi réew yi daanaka saga mu ngi ciy xeeñ xadi colonel Guèye mu mel ni umma islamique bi noppiwul rek di dal ci kaw ki nga xamante ni mooy njiitu réew France di Emmanuel Macron moom mi yëkk ay kàddu jëmale ci islam dem sax ba yenn dëkk yi moom rawatina ca Moyen-Orient ñu daal di rek boycotté lépp lu nga xamante ni rek ay produits français la bokk na ci li waral umma bi daal di lool mu di Macron mi taxaw ne du ñu dertu gànnaaw benn yoon ci caricature yi nga xamante ni ñu ngi koy caricaturé yonent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam président français bi xamle woon ne ni laaj na ñu xoolaat doxalin ba rawatina islam diwaanu France

noppeegul di wàññeeku ba léegi ci diggante ñaari chef d'état yooyu nga xamante ni saa si teme nag ay dossiers yi sakkan mu leen daal di féewale. Voici Trafic News. foo féete voilà Mansour progressé nañ jaaxle nañ ko si yoon weerax bi ñu gën ko xamee boulevard du Centenaire la commune de Dakar waaye foofu lay xaar leen fa ay jafe-jafe euh, passage a niveau bi jëm marché poisson d'autres lenteurs Pikine ak li ko war sorti dafay jafe ndax des travaux en cours tax ba mu jur jafe-jafe pour ñu bàyyi ko fi nga xam mooy di côté de Guédiawaye jaare ko ci technopole bi utali Lobatt Fall rond-point Cambérène tout autour ça ralentit des véhicules bàyyi ko Pikine Case bi maraîchers par là tax ba des ralentissements sont à noter du côté de Case bi aussi yéen ñu bàyyi ko fi nga côté des deux voies de Cambérène ak ñu bàyyi ko du côté de Fadia ñooy casé ak lay tax ba foofu lay jëm Zik FM. From opérateur pour la euh, garantie euh, de l'émergence économique en Afrique FOGECA nee na lam bëgg moo ñu taxawal kuréel goo xam day dëgg dëgg nag euh, tax njiitu réew yi respecté lii di yi ba ñu dilal itam euh, constitution yi ngir kat élection yëpp tegu ci leer ba fitna du am ci Sénégal Alpha Condé ginnaaw élection présidentielle yi nee na ñu génn na ak cinquante neuf virgule quarante neuf pour cent loolee la ñu annoncé ci ci pandaw ji itam Cellou Dalein Diallo 33 la am pour cent waaye loolee mënuñu ko dégg ndax kàddu yi bàyyeekoo ca ka toppoon ca ki de ka jiite seeni ba jàpp ne am nay sàcc ki ëldëb yoo xam ne am na waa CEDEAO sax yabal nañu benn mission foofee ci Guinée ngir ñu daje ak Cellou Dalein Diallo mi leen tegal sax nag ci rencontre boobu ay conditions Fatou Laye Mbaye Diop Guinée ba léegi nekk ci ay xat-xat résultat provisoire yi génn daal di jox nag victoire bi Alpha Condé ak nag téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñeent yu toftal ñeent fukk ak juróom-ñeent Cellou Dalein Diallo moom nag ñëw ci ñaareelu place bi téeméer boo jël fanweer ak ñett commission électorale nationale indépendant moo ko daal di xamle waaye nag jiix jaax am ca wàllu woowu ndax bile commission boobule sax vice président bi ak yeneen commissaire ne ñoom dañoo gis lu yan wul maanaam ci élection bi waaye ay fraude dañ koy nemmeeku ci élection bu 18 octobre bi ñu wees ba tax na yi yile membre ñu naan nag élection yi nañ ko daal di defaat wala sax ñu defaat yeneen i vote ci yeneen i yi nga xam ne am na ay jafe-jafe ci noonee lu Dalein Diallo ba léegi moom di wax ne am na victoire ak nag téeméer boo jël juróom fukk ñett ya tey it muy wax mission CEDEAO bi nga xam ne ñëw na tey ji ca ginne fukki at ngi nii muy dund fitna bu jóge ci nguur gi tey it ngir rek mu daje xew ñoom waa CEDEAO moom mi ngi teg ay conditions Fatou Mbaye Diop maa ngi lay jaajëfal fukki simila ak juróom-ñett moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Actu ISPO ñu ànd ci ak euh, Baye Ma Anta Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ñu doore ko ci match amical U20 euh, euh, Maroc Sénégal tey ci ngoon. waaw encore ati tey ci ngoon encore ati gannaaw nag ba ñu amee benn jongante xarito ku doxoon tamit ci u yi ba nag ñaari équipe yi tembe woon ci ku nekk dugal sa morom benn but tey jëlee nag la ñaari jongante bi di am bu ci ngoon jotee foofu ca complexe Mohamed VI nekk ci ca football bu Mamoura jàppale nag gaynde Sénégal yi ñoom ñu ne nag am nañu visite. kii di président bu fédération sénégalaise bu football maître Augustin Senghor mi ne nag. Euh, boobu la jogante lan mooy importance am ak tamit wàccaay yi nga xam ne Sénégal moo ngi koy wàccaay jëm nag ci CAN u yi nga xam ne fas yéene amal foofu ci Mauritanie ñu teewlu ci kii di Yaya Baldé moom membre la ci comité exécutif nekk tamit chef bu délégation sénégalaise foofu ca Maroc ci jokkoom ak Soxna Fall. président fédération déplacé wu na. ñëw ak benn message bu comité exécutif bu fédération sénégalaise de football. message de soutien la. xale yi ñu ngi préparé tournoi bi war am Dakar. pour buy joxe benn tiki. buy équipe bu war a qualifier Coupe d'Afrique président Augustin nag aussi rappelé jaar-jaaru équipe nationale u yàgg na fi def ay jaloore président Augustin rappelé na xale yi surtout nouveau yi soog a dugg ci équipe bi u yi équipe bu jar a bàyyi xel la parce que am na xale yu bëri fii lañ jaar soog a commencé nañ ñeen ñenn ñi équipe A ñenn ñi nag ñu ci gën a bëri ñu ngi Europe amuñu droit à l'erreur dañu war a mën a qualifier Coupe d'Afrique bii di ñëw ñëw desandi ba tey ak gayndek Sénégal yi ñoom ñu nekk ci wàccaay lu jëm ci wàllum CAN u bi nga xam ne fas nañ ko amal foofu ci Mauritanie ci atum mu nekk tournoi qualificatif boo xam ne fii ci Ndakaaru lañ koy amalee da benn ticket rek lañ ci fas yéene jël ngir bokk ci boobule compétition naam sax ni wàccaay yi ci équipe nationale bi nag ki leen di tàggat waxtu wi mu fas yéene nag taxawal beneen équipe bu yees jàngat ak Soxna mu ay club ci jamono ji defaraat équipe bu baax bu mën a compétir ci échéance yi nekk suñu kanam mooy mbébét bi ci noonu équipe bi mi ngi ci wàccaay Lions yi war a dajewaat ak Maroc talaata ji bu di h jotee ci match xarito gannaaw seen bu njëkk benn benn la ñu def Sénégal nag bëgg am benn ticket qualificatif bi ko yóbbu ci CAN U20 bu Mauritanie mu di ticket boo xam ne dina am xëccoo bu metti ci diggante ay pays de la sous-région U20 yu Sénégal am adversaire naree woon jël premier trophée continental am ci CAN Niger bu 2019 bi ñu génnoon Sénégal daal di ñàkkoon ci séance de tir au but Mali moom sax woo na ñaar ak juróom ci ay joueurs ñu nemmee ko ci ay académiciens bu weesoo Mali Sénégal war a jaar ci kaw Guinée Conakry Guinée Bissau Gambie Cap-Vert Libéria ak Sierra na tournoi qualificatif bi jàpp nañu ko ci Dakaru ñaar fukki fan ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent équipe bi ñu mën a jàpp ni dina am ay renfort yu gën a dëgër ju jóge ci réew wax léegi ci Ligue des champions ak euh, seen ñaareelu bëccëg ak programme mu tey bi. ñaareelu bëccëg bi nekk tey nag jàpp na ci groupe A bi bu 17h55 jotee locomotive bu Moscou moo fas yéene dalal kii di champion en titre bi di Bayern Munich bu 20h jotee nag Atlético bu Madrid ak Salzbourg lay ci groupe B bi bu Donetsk mooy dalal ñii Inter bu Milan 20h nag Mönchengladbach ak Real bu Madrid lay ci groupe C bi 20h Porto moo fas yéene dalal équipe di Olympiakos foofu ci stade Vélodrome nag lañ koy jeexalee vingt heures ci diggante Liverpool ak équipe bi di Midtjylland ci waxtu woowu sax si la Atalanta bu Bergame di dalal ñii di waa Ajax